borom bi subhaanahu wa taala dafa wax mu ne min almuminina rijalun sadaqu ma aahadu llaha alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila borom bi subhaanahu wa mu ne am na si julit ñi ay góor yoo xam ne daña déggu ci lu ñu déggee ak seen borom subhaanahu wa taala macha allah gis nañ ay taxawaay yu màgg ci suñu mbokk yi fale ci Palestine fale ci Gaza nu ñu bettee juif yi ak nu ñu leen duma anam boo xam ne musul am macha allah yal na yàlla fayal yow nangul leen ñoom ñooy ñi nga xam ne tey jii ñoom ñoo sàmm al masjidul aqsa donte ba léegi masjidul aqsa moo ngi si loxo juif yi waaye lan moo tax ba léegi eggaguñ si yenn mbir yi si niveau yi ci tilimal masjidul aqsa mooy calculer waa Gaza loolu ki ko kii topp seen information xam na ko bu baax a baax a baax a baax mbokk yi jihaad fi sabilillah dafa nekk loo xam ne dafa war si jullit ñi laa shakka lii nga xam ne mooy masjidul aqsa dara di ko delloo lu dul jihaad fi sabilillah macha allah waa Gaza moom waa Palestine moom ñoo ngi taxawee say warugal si côté boobu ñun nag la mooy suñu taxawaay mooy ñaanal leen moom mooy dimbali leen moom mooy taxaw leen moom mooy encouragé leen moom mooy ñaanal leen yal na yàlla fay la yiw yal na yàlla taxaw leen yal na jàppale leen waaye itam ñu ñaanal waa Gaza bi nga xam ne ginnaaw bi nga xamee ne juif yi tele nañu ci jàmbarloo ak mujaahidiin yi la la ñuy def moom mooy bombardé ay xale bombardé ay jigéen bombardé ay civil ndaxte mënuñoo jàmbarloo ak ñi nga xam ne ñooy euh, waa Gaza ci seeni i góorgóorlu ak seen i kattan ak seen man-man yal toroxal juif yi dàkk leen génne leen si Palestine yaa rabbal alamin لن نجعل القدس العظيمة حرة حتى نحرر قبلها أرواحنا لن نجعل القدس العظيمة حرة حتى نحرر قبلها أرواحنا همم الرجال وعزمهم سند لنا والحزم والرأي السديد وشاحنا سنحطم الأغلال من أعناقنا وغدا يطل على الظلام صباحنا